waaw tey dañoo woote woon benn sitting pour naqarlu dossier bi nga xam ne am nañ ko ak Pape Demba bi tey ndaxte ñun dañu nekkoon ci agence bi di liggéey bi ñuy liggéey nag euh, liggéey boobu daal di taxaw bi mu taxawee taxul ñun ñu bàyyi suñu loxo ñu continuer combat bi biñ ko continuer nag ci lañ ci interpellé Mame Matar Gueye ONG Jamra mu dugg ci ci lañ continuer suñu combat ba Innocence Tab Ndiaye dugg ci ci la Pape Demba bi tey ak direction bi signé ak ñun protocole d'accord daal di wax ni Senelec bu soxlaa ay agent ci yéen laa koy jëlee yéen le collectif des ex contractuels daal di wax ni chaque année dinaa jël si yéen le collectif des ex contractuels jox leen ay CDI yi ñu ci des ma jox leen ay CDD ko organiser na fi concours ñun suñu collectif bi am ñu si am moyen jëlu leen dem jël ñoo xam ne amuñu mu suñu liggéeyee Senelec daal di leen di embaucher ba léegi loolu mu ngi wéy ñun nag li ñu bëgg mooy mu euh, régulariser suñu dossier bi nga xam ne moom mooy euh, le collectif des ex contractuels mu respecter protocole d'accord bi bind nañ leen ay lettres faale wuñ ñu def nañ ay point de presse faalewuñu lépp lu ñu waroon def ñun def nañ ko faalewuñu loolu moo tax ñu organiser sitting bi te wax net dañuy interpeller président Macky Sall directement wax ne ko su fekkee Pape Demba bi tey régularisé wul suñu dossier bi ci atum 2022 duñ bàyyi dañuy continuer li nga xam ne nii moom mooy combat bi ba daal di am ndam boobu ba léegi ñu ëpp si ñun chômage la ñu ne kenn liggéeyut 2017 la signé ak ñun protocole bi ba léegi chômage la ñu nekk te ñun on était au nombre de 189 au début mu jël ci 15 2020 jëlaat 15 ak ñoo xam ne ci concours yi lañ leen di roccee di ay benn benn te kaay moo wax la nag gis nga ñun sax mu jël 15 yooyu jëlu leen ci coobaram ne dañoo combattre xeex ba dugg kom ñu ñun ñu koy defee nii actuellement on est cent et quelques personnes cent et quelques cent yoo xam ne voilà ñu ngi ci biti te dañoo bokk ci dossier bi nga xam ne mooy ex contractuel bind nañ lettre jéem leen lu nekk def nañ ko Mame Matar Gueye sax da leen di woo duñ ko wuyu lu ne def nañ ko suñu ki nga xam ne moo ne suñu facilitateur di Innocence N Tam Ndiaye moom it mënatuñ ko jot signature mu ngi ci signature Mame Matar Gueye mu ngi ci dossier bi li ñu waxoon respecté wuñu ko Moussa Dieye it signature mu ngi ci continuer le combat ba ñu ñuy sax ba suñu bakkan desi parce que ñoom ay perte parce que ñun ay soutien de famille lañ ay père de famille lañ comme ñoom niñ ko doone ñoom bu weer deewee dañuy fayee ko te ñun bu weer deewee ñun amuñu dara luñ jox suñu ay famille te ñun suñu ay diplôme professionnel moo ñu dugal Senelec ñi ñuy embauché gënuñ ñu koo yeyoo népotisme boobu moo gën moo gën a métti fii may waxee ak am na ñoo xam ne embauché nañ leen te ñi nga xam ne ñoom ñooy prestataires yi ñoom ñooy leen di former pour ñu xam nu ñuy liggéeyee Senelec mënuñu sax tee tournevis ñun dañu amoon ak ñoom ay contrat CDD am ak ñoom papier yu wér yoo xam ne nii dañu am lien juridique ak ñoom dañu am ak ñoom lien yu bëree bëri ñu boole ñun nu some des ex contractuels de la Sénélec bu ngeen fàttalikoo bu ngeen fàttalikoo 2015 am na 493 yu demoon grève ñun ñii la ñu woo ñoo leen remplacer assuré leen bañ am performance yu baax booba Senelec booy xool mu ngi nekkoon en faillite voilà. li dem retraite bari na mën na cent et quelque ay poste vacant nga fa te jëluñ leen seen ay doom la ñuy dugal seen ay militan loolu lañ nekk di leen dugal fi mu toll li xew mooy népotisme bi ñu la wax rek clientélisme bi jël seen ay doom seen ay militant parce que ñu ngi jëm ci ay élection loolu rek moom moo ko waral suñu kàddu gi mujj mooy président de la république yow yaa wax emploi des jeunes ñun nag dañ koy yeyoo dañu bëgg nag emploi boobu ñu gis ci suñu bopp parce que dañu am protocole dañu am ay diplôme professionnel loolu la ñu soxla